salaamaaleykum chers téléspectateurs de la RTT TV di amaan mbégte ak bànnee saa su nekk di jàkkaarloo ak yéen tey nag ñëw nañ fi nga xam ne moom moo di xel Xelcom daal fi fekk monsieur Baye Thioro Mboup daal ko fiy fekk ci atelier couture bi mu fas ne waxtaan moom ci événement bi ci préparation waajal tabaski 2022 ak bu ko defee dañ koy nuyu bu baax a baax daal koy ziar monsieur ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi leen di fay euh, di fay ñu ne nuyu ñu ne ci télé bi yëpp. vraiment caméraman yi ak euh, présentatrice yi journaliste yi animatrice yi animateurs yi di nuyu ñëpp rek di nuyu waa RTT ak euh, seen directeur Khadim Soumaré di nuyu le président Mamadou Seck président regroupement des terres de la région de Thiès di nuyu teeru Thiès yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu waa marché Xelkom gi ma nekk tamit vraiment di rafetlu tamit seen liggéey waa RTT vraiment di rafetlu tamit wàcc bi ngeen wàcc ci teer yi xam nga parce que lii na solo daal wax dëgg yàlla téere yëpp mu cee seen bopp comme télé bi téere ñoo ko moom vraiment di defet lu baax teewaay bi daal. macha allah nuyoo bi am na solo ba tax na tey dañoo def déplacement ak dérangement daal di ñëw ci seeni i place daal di fa seenee waxtaan ak yéen ci waajtaayu tabaski bi muy événement bu am solo ñu gis leen tamit yéen ci. waajtaayu ñawi ah, daanaka sax yeneen ci ñawi ndax li ci des bareetul ñu bëggoon a xam rek euh, yan ñaw ngeen daal di commencé ak tam fan la ñawi toll pare na wala parewul ak tam na ngeen dundee ñawi ak ak client yi. Mm-hmm. waaw ñaw moom instant bi presque sori nañ ci bu baax a baax a baax parce que booy xool ñu ngi ci dernière semaine bi waaw ñu ngi ci dernière semaine bi vraiment li ci ëppoon ñëw nañ ko dañuy eggalee rek yi nga xam ne moo ci des waaw Euh, tamit modèle yi nga xam ne presque ñoo génn tabaski bi tissu yi tissu ci santé yi bëri kii na ci euh, xew na ci trop ak brodé prixe yi Getzner Mbasin russe waaw euh, broderie 217 bi waaw pakistan yooyu yëpp ak ak machine ordinateur bi yooyu yëpp ñoo ngi koy def waaw. ma gis ni cent 217 xewi woon na fi mais gis nañ ni tabaski bi dafay xewaat. waaw tabaski bi dafa dikkaat waaw tabaski bi dafa dikkaat mm, tamit euh, te loolu baax na trop comme euh, comme machine yi fii bi nga xam ne dañu woon yu mel ni ay 217 ay cornière ay grofil ñun téye war nañu fexe travailler ba yow yi ñëwaat parce que yooyu tamit baax na bu baax a baax suñu métier quoi waaw moo ñu mun a may dara quoi Mm-hmm. Aïcha nan ngay daal di gisee tam li nga xam ne moom moo di xale yi nga xam ne inse bi jóg nañ ci ba dugg ci wàllum culture bi muy jeunesse bi macha allah waaye tam bëgg gis nañ ni ñoom bëgg nañu am xaalis mais ñeme wuñ coono parce que yéen ñi seen i temps da ngeen daan toog ba seen patron daal leen ber waaye léegi tey da am dangay ngay am apprenti mu liggéey ci yow 6 mois benn set mois daal di mën dara commencé beru nan nga gisee loolu. Mm-hmm. waaw yaa ngi laajte question bu solo sax vraiment di actualité ci ci ci ci instant bi ñu toll nii. Euh, parce que <laughs> emprunté sax mën naa ne daanaka dafa jafe waaw des fois di nga dugg si benn at ci atelier sax doo fa gis sax emprunté parce que booy léegi presque nangatuñoo jàngi métier wala ku ci jàngi métier boo mënee taxal benn taywaas rek defe ni pare nga si dem xama dem defi embossement wala ngoo bi sa atelier après cay problème rek ngay mujj kon di di wax ni ndaw ñi nañ jàngi métier parce que métier am na solo métier am téer bi ne am na solo trop vraiment jàng ko ba sa patron ñaanal loolu mooy barke bi toog ba sa patron ñaanal la loolu mooy barkeel mais da ngay ñëw dan quelque temps rek nga mun benn taxalee lu ndaw rek defe ne yow mën nga lépp xam nga commencé fondu doo doo ko teg si yoon loolu taxul ñu naan métier quoi loolu du barkeel waaw loolu moo tax tolof tolof yi léegi bëri ci booy yi waaw parce que tarbiyeetuñ métier bi quoi te métier da koy tarbiye ba sa patron ñaanal la kontaan ci yow xolam sedd yow mu ñaanal la. bu ko defee loolu song rek da koy daan oui foofu la. nañ si bàyyi xel bu baax a baax nag itam la ciy am solo nekk ci benn milieu di fa jàng ba sa patron xëy ber la loolu si am solo ba tax na barkee ngi si ngeen daal bàyyi xel bu baax a baax ay ca ñawi tey fan la toll pare na wala pareegul. waaw ñaay lu jëm pare na lu ceeb bu daal pare na waaw daanaka dañuy eggale ci des rek ci dernière semaine bi waaw ci eggale daal dañuy def mais lu jëppoon yëpp pare na parce que affaire booy xool jeex na. presque benn semaine bi semaine bi rek moo ci des waaw daanaka jeex na quoi. ñëpp nañ jot seen ñaw incha allah. waaw incha allah ñëpp nañ jot seen i ñaw incha allah waaw bu soobee yàlla. ñu bëggoon a xam tamit fii nii ci complexe bi yan ñaw lañ fi faral di génne ñaw jigéen rek mañ fi ñaw wala ñaw góor wala lépp loo xam ne rek bëgg nga ko pour sañ ko boo ñëwee fii ci complexe di nga ko fi fekk. waaw fii yàlla dogal na lépp la ñuy ñaw waaw ñaw góor ak ñaw lépp la ñuy ñaw ñun bàyyiwuñ dara waaw ay lañ ci ko diir bàyyi ñu ñëw góor bàyyi ñu ñëw jigéen bàyyi ñu teer complet lépp lañu ñuy ñëw waaw fii fii daal boo fi duggee lépp loo bëgg ci wàllu ñëw boo fi duggee nañ la ko defal waaw ba ma ko kontaan sax incha allah. xam naa après dinañ daal gis image yi nga xam ne jot nañ koo ñëw fii. waaw incha allah waaw. loolu mën na nekk waaw incha allah après nañ leen si image yi nga xam ne ñoom ko fii bu soobee yàlla. Mhm. ayca ki ñu toogal muy muy tontoo Baye Coro mu nekk fii nga xam ne mooy marché kom yaakaar naa ko ko xamul tam dégg nga ko fii ci Thiès waaye tam ñëpp xam nañ ko tam ci regroupement des tailleurs de de marché central regroupement des Thiès ni ñu koy waxee saa su nekk ah mi ngi noonu bu ko defee rek dañ lay daal di bàyyi nga daal di tàggatoo téléspectateur de la RTT TV ñu dem ba beneen incha allah. waaw di leen jaajëfalaat rek. di leen nuyu yéen baax a baax di nuyu tamit maam alaaji Samba ji si caméra bi ak yéen ñi xama ak yow mi présenté émission bi vraiment di di nuyu tamit Khadim Soumaré le directeur vraiment di kontaan bu baax ci moom ci initiative yi muy jël di kontaan tamit le président des terres de la regroupement de regroupement des terres de la région de Thiès bi nga xam ne ñun ñëpp ci lañ bokk vraiment di wax ni président yàlla na ko yàlla may ndam daal ci liggéeyam di kontaan bu baax ci ci ci télé bi vraiment parce que suñ télé la quoi ñun bu ñu bu ñu koy seetaan dañuy am fier dañuy kontaan waaw lépp tout de grâce à président Mamadou Seck vraiment di ko ñaanal bu baax baax suñu borom gën ko kattanal may ko ndam ci ci liggéeyam. Mhm. di gërëm teeru Thiès yëpp nag di gërëm waa marché Xelcom bi yëpp ak sama clients yi ak suma emprunté yi vraiment ak assistant ñëpp rek ñi nga xamante ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi waaw ñu ngi leen nuyu ñëpp rek ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp daal vraiment di leen gërëm oui. Aïcha tonton Baye Thioro ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la remercier itam macha allah nuyoo bi am na solo waaye itam dalal gi tamit am na solo bu ko defee rek dañuy remercier képp koo xam ne rek yaa ngi fi ci marché koom ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal di leen wax beneen yoon incha allah dinañ fi ñëw mu gën a yaatu bu ko defee kenn ku nekk mën kee gën a gis sa bopp bu ko defee dañuy delluwaat rek ci biir daal di xoolaat suñu beneen daal di mu daal ñuy présenté waat li nga xam ne mooy suñu spécial waajal tabaski 2022 merci beaucoup